di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa su ne ñi nga xam ne yéen la ñuy topp macha allah sur Talibé TV yéen ñi nga xam ne tamit yéenay topp macha allah borom xam-xam allah ki ñëpp bëgg ki réew mi bëgg macha allah ki nga xam ni moo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa nit ñi bëgg ko ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñàngaleem mu leer ak xam-xamam macha allah di oustaz Mouhamed Mbaye oustaz maa ngi lay nuyu la bàyyi nga saafante ngi lay seetal. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, Thioune bëgg Bamba maa ngi lay ziyaara bu baax a baax euh, di la yéeg sa yéeguwaay euh, itam di la wàcc sa wàccuwaay ay di nuyu sa caméraman bi nga xamante ni moom ngay àndal ñu tuddee ko Cheikh Gentleman maa ngi nuyu Cheikh itam di ko yéege yéeguwaayam nuyu waa réew mi yëpp nuyu mbokk internet yëpp tabaarakallaahu Oustaz macha allah ñoo ngi lay ndokkeel ci weer wi de mu mel ni weer wi feeñ na waaw di weeru tabaski. tabaski euh, feeñ na ñi nga xam ni bis yi duñu xam waaye lu mel ni àjjumay tey ji mooy le premier jëm ci fukki fan yi nga xamante ni yàlla fonk na ko ba tudd ko ci alxuraan mhm. te muy wal fajiri wala yaalil ashiri mhm. fukki fan la yoo xamante ni tabaarakallaahu yàlla bëgg na jullit ñëpp bëgg bàmb mhm. yàlla bëgg na jullit ñëpp dem aljana li mu mayee ci bonus dafa bari yàlla may na bonus ci koor nga nga nga ni biir koor gi def naa njuumte mu ni la fexeel ba assuré jouru jouru laylatul xadri mm-hmm. nga ni ko jouru laylatul xadri def naa njumte mm-hmm. mu ni génn naa ak yow koor dàqante naa ak jëm weeru Euh, euh, tabaski mhm. nga ne ko yàlla fu ma lay xaar mu ni boo demoon màkka yi tamit bokkal ci ñi nga xam ni fukki fan yi luñ ci def man yàlla ma jéggal leen ko nga ne yàlla mënumaa assuré fukki fan yi nag mun la nag xanaa bisu Arafa war nga ko mën a woor ma balla bàkkaaru daaw balla bàkkaaru ren buur bu mel noonu nag wax dëgg yàlla bëgg na nga dem aljana boo sàgganee ba dem safara yaa fa sa bopp wallaahi nekk kon nin ko déggee macha allah safara ko fa dem yaa fa sa bopp oustaz ñu bu weer wi nag buñ ci teroo tabaski jot macha allah lan mooy tabaski ak ban wàccuwaay la am ci diini Euh, bëgg Bamba tabaski mën na wax ni communication la jóge ginnaaw yàlla natt bu mu doon natt jaamam fan laa la toll ak lan laa la jaral ak fan nga jëm ak man te mooy diggante maam Ibrahima ak maam Ismaayila ak maam Haajara ak maam Saarata sax gis nga coow li coow li aw buuru aw buuru ñaareel ñetteel parce que bokul ci guerre bi motax tax buñ la ñettel nga ngang <laughs> lu buñ ne la awo automatiquement nga ni buru kërëm buru kërëm lu buñu ne la ñaareel automatiquement nga ni xaritu jëkkëram. Mhm. ñu ni ñettel nga ni ah génnal ci mbedd mi. ko ni ñettel lan la. Mhm. xalaatu bopam lay indi mais ñepp duñu bokku daje. dëgg la mais ko ni awo ñepp daw ci buru kërëm mhm. parce que nak programme la bo xamanteni mam Ibrahima jëmon na mak ba bu téméré at. mam Haaj Sarata. dem na ba ci quatre-vingt-dix-neuf ans di jëm téeméer amuñu doom njabootuñu ñu dem ci benn manifestation bu leen benn buur invité woon mhm. bi ñu demee buur bi yëg ni pour ma ormal kàddu gi ndax yonent bi mu doon mhm. buur bi yëg ni ñaar ñii kat soxla nañu ko leen jàppale mhm. mu jël jaam bu ñuy wax haajara may leen diggante maam ibrahima ak maam saarata mais gis nga bëgg bàmba bi nu ñibbisee ci aaw bu baax ni maam Ibrahima moom maam Saarata. xale bi jigéen la. te toll na ci ndaw war a am doom. bul ko def sa jaam. jël ko nga def ko sa soxna. macha bis bu amee doom. nga sagu yow baay ma sagu man yaay yaayam sagu maam Ibrahima d'accord. bi mam Ibrahima d'accordé ci la jël maam Haajara may ko jox ko maam Ibrahima. yàlla def balaa ren di déwén mu jàpp ëmb doom sosu. macha doom moom amul yonent amul xutbu amul waliyu comme mënti doon da ngay bëgg doom parce que doom mooy fiiri du moom mooy mu wax nga dégg baat bi ni comme baayam muy ñëw nga gis ko ni comme baayam mu yëngu nga xool ko ni comme baayam macha allah maam Ibrahima yi tamit yàlla nattoo ko benn néeg ci la aaw bi fanaan ci ñaareel bi fanaan benn benn néeg ci la aaw bi fanaan ci la ñaareel bi fanaan bi mu amee doom léegi nag ñaareel bi commencé naa osé parce que itamit nag kee mag la dina ko ñeme. Mhm. màgget la mhm. mais moom xam na ni jànk la te mhm. itam am na doom maam Ibrahima amul sago ci Ismaila bi maam Haajara xamee loolu moom it day osé ci kër gi bi ñu nekkee ci ci biir néeg bi euh, maam maam Saarata commencé di jëm mag ay bëtam di wànnent ku ne xam na ni wànnent méngoowul ak néeg bu leer parce que wànnent baaxul ci euh, lamp baaxul ci bët mhm. mais ku ne xam na ni liir itam ñemewul lëndëm mhm. maam ibrahima ne ci néeg bi mhm. bu ñu tëddee ba ci yàgg mu taal làmp bi mam maam saarata da ko fayal làmp bi samay bët day metti mu fay lamp bi bu fayee lamp bi mam ismaeil joy mam Haajara jóg ko talal lamp bi dafa leundum ndax sama dom ñemewul lamp ñemewul leundum mu juk talat lamp bi bu talé aw bi niko fayal mu fay bu fayé ñaaral bi niko talal mu tal muy tal di fay cheikh di tal di fay ba ci yag mune len neexul ba neexul nak bëgg na taal ngir sagal aaw bi waye bëgg na fay ngir dimbali lire bi xëy suba yàlla ne ko ginaaw aaw buru kon gennel sa ñaarel momul kër gi te boo genn bul ko genn genn bu jégué fi xel ba na la sori mu genn ko lu tolok Dakar ba Casamance laa ilaaha illallah Dakar ba Casamance genn ko dëkk bi ñu nekkon ñu bari neenañu sham la waye li wér te wóor yóbbu na ko ardu hijaz te muy màkkatal mukarrama dëkk la boo xam ni àll la ay xeer doo nga fa ne. gis nga temps bi mu fa def ak ñaareel bi def nañ fa plus de trois mois. su demee bay tàggoo parce que da daan dim rëbb ñëw indi ñu lekk. mu fexe ba am ndox ñu naan. maam Ibrahima def ay weer. bi mu waree def retour pour ñibbi. ñaareeli ak seen système day pacc pàccal bët jooy. ni ko koo may bàyyeeg liir bu ndaw bi ak àll bii. nga nar a dem foo xam ne voyage mën ngaa def weer kañ lañ lay gisaat. maam Ibrahima di diital toog. Uhuh. toog. bi mam Ibrahima xalaatee ni li nit naan sixième sens am na. Mm. yàgg bi ma yàgg sama ñaareel nag jaadootul te sama aawo mbag te amul ku ko dimbali moom itam amul doom. Mm-hmm. te yàlla dafa yéeme. Mm-hmm. xoolal mam Ibrahima ñu bari duñ faral di nettali loolu bi aawo bi bi ñaareel bi amee doom. Mm-hmm. ci la biiru aawo bi fiir mu doog a am doom. Ah, ci quatre vingt dix ah. jëm cent ci lay doog a am doom moo jur yonent yàlla Isxaq. Ismaila maam mhm. euh, euh, maam maam Haajara ko jur mhm. waaye maam Saarata moo jur Isxaq mhm. bi muy dellu di ñibbi ñaareel bi ni ko koo may bàyyeel mu ni ko bàyyi naa la ki nga xam ne la taaxuzuhu sinnatun wala nawmun mun ko comme bàyyi nga ma ak yàlla nag damay far toog des ak yàlla maam Ibrahima dellu dëkkam xoolal bi mu delloo dëkkam ci la maam euh, Saarata doogay jàpp ëmb doogay am doom moom doom ji nekk yonent yàlla Isxaqa yàlla def mam Ibrahima mam Isma mam Saarata Haajara nekk ci àll bi muy ardu Xijaas boobu tuddagul Màkka. toog ba ci yàgg acte bi leen njëkk a sonal mooy naan ndax désert la ndax jamonoy tàngoor la. maam maam Haajara day yéeg ci Safa. Mhm. xool Marwa. ñi nga xam ne dañuy voyage yi jamonoy tàngoor bu ñu nekkee ci oto bi di xool ci tali bi dañuy gis ne ndox a ngi ci seen kanam mais luñ gën a daw oto bi di gën a daw muy gën a jege ndox bi day gën a sori parce que du ndox loolu la maam saa Haajara doon gis mm-hmm. taxaw safaa mm-hmm. bu taxawee safaa du gis ndox mm-hmm. mu daw ba marwa mu dawee ba marwa taxaw xool lu mel ni safaa dafa am ndox mu dawaat ba safaa xoolal yàlla ni mu teralee jigéen joo xam ne wali yi yonent yi ñëpp ñu ngi koy dawal te jigéen ju nangul borom këram la kon nga xam ne jëkkër am na doole bëgg bamba daw safa ak marwa ñaareel la ko waral mhm. ban ñaareel la ñaareel bu nangul borom këram yàlla ni ko nag comme daw bi nga daw diggante safa ak marwa dinaa ko boole ci faratay xaj ku ñëw màkkatal mu karama ngay góor ngay jigéen ngay président ngay walliyu ngay ku ni ko koo mënti doon di nga jëfal ñaareel bi jëfam ci fay ah, mu daw ba juróom-ñaari mat mhm. ci la Ismaayila jooyee bay fëgg tànkam ci benn xeer mhm. xeer booboo doon génn ndox mais comme ñoom abraani ya la ñu doon làkk Euh, mu naan ko xayma bi maam Ibrahima defaroon. Mhm. ndox mi bari ba fay tuuru jëm fa. maam is maam xaa sa euh, amul lu ko lu lu mu baaree ndox mi. Mhm. parce que yorul woon matériel. Mhm. mu naan ko zam. zam mooy dalal ci baatu abrania dalal dalal di ko wax ndox mi léegi nag baatu zam boobu moo wër ba baat bi barkeel ba tey ñëpp naan ndoxu zam zam. foofu la kon zam zam bi jógee zam baatu abrania la mooy dalal dalal mu koy wax ndox mi. bi waa Jurhum euh, giir lañu daan voyage yi di romb ardu xijaas muy Màkka xam nañu xam nañu ne fu picc tiim day am ndox waa Jurhum gis ay picc ñu ni picc yële fi ñu tiim ñàkkul ni am na ndox bi nu ñëwee leen fa fekk mam Haajara ñu ni ko yow la kan mu ni la man leen man la Haajara kuy sa borom kër mu ni leen Ibrahima te yonent dafay siiw parce que la yàlla waxoon yonent bi ni ko war a faanaa laka sikrak maam Ibrahima mooy sama borom kër moo ñu fi bàyyi kii doomam la Ismaayla mu expliqué waa dëkk bi waa jur Jurhum seen bi ni mu demee mhm. ñu ne ko bàyyil ñu toog nekk sa ay dëkkandoo mu ni leen waaye nag teen bi maay borom ñu ne ko d'accord nañu parce que xam na doomu aadama mhm. ci noonu ci noonu ci noonu la ñu dundee ci noonu pour ma rëppatalal la mhm. ci noonu la ñu dundee ba ci Ismaayla dem na ba am lu jege 15 ans maam Ibrahima jóge fa ci aaw bi ni ko nag sama ñaareel gëj naa ko gis mook doomam war naa mam ibrahima bi mi delusi wat mam ismaila degul bat lak bi bayam deg parce que bayal xel ni fi mu juddo wa dekk bi ñew di wajurhum sen sen la magale deg lak bobu hmm. waye yonent kum jakarol wax ak yow wallahi <laughs> gis nga yalla ni yeme hmm. wajurhum nek fa mam ibrahima bi mi ñewat gis dekk bi nat gis makka ardu hijaz nat mu yem ko lol ndaysan xolal pourtant ci aw pour rendi dom mais dafa ñew ba ci ñaarel bi fanaan ba yeewu ci la gént gént gi géntewu ko géntewu ko kër aawo bi léegi bu fekkoon ñun sunuy jigéen mhm. nga xëy ñëw ni sa doomu ñaareel ah, doom démb damaa gént yàlla ni naa la rey oh. bi muy wax ak doom ji nag imposé wu ko mais daf ko proposé mm-hmm. dafa ne ko gént naa ni dama laa war a rey mais nag xool ci lan moo ci sa xalaat ma bàyyi la nga xalaat bëgg ni ñokket jóg Ismaayla téye ko ni ko yonent du xalaat bàyyi lii nga déggante guddi yalla moo la ko wax defal lu la neex sa taji doon yee insha allahu min asaabirin mm-hmm. rayal bu dee rey moo jekk sama diggante ak yow parce que yonent nga te mm-hmm. yonent du pourtant bimu ko ko waxe mënoon nañu ko papa yow yaangi ngi sa dom euh, euh ci dekk ba. yaangi joge dekk ba ñëw bëgg ma ray genté yow fofu di genté yow. papa dal te boy habitude bi ñu tam papa ya neex <laughs> yoy lañ koy jam eh? mais gis nga mam Ismaïla yaayam euh, bi papa waree xëy yóbbu ko. Hmm. maam Ibrahima pour indi juko ko. Hmm. te yonent du wax lu dul deug hmm. dafa ni rek way juróom bu jigen Haajara parel ma Ismaïla dafa am fu ñuy ant mu parel ko ci ci ci wàccaayu tabaski laa mu parel ko rek ñom ñaar ñu génne di dox bi ñu dox ba ci yag rek ci la ni wacc ci kanamu ismaeil di ko ne ko yow ngay xale bu goor jurhum ya len tere nelaw taru nga lol tollu ci sa diggu doole bo reetaane ñepp contane nga am succès ci dëkk bi ñepp jappé le bour ngay xol ba sa baye di la firé nak ni nga mel ci dëkk bi ngir bëgg la rendi baña loolu bañ ko ndeysaan Ismaayila ba ci yag mu nan ko mu nan sa baye dafa nax nee na yàlla ko ko digal bañ ko Ismaila xeer yi mu doon sànni sax yàlla daf koo barkeel moo waral bu ñu demee màkkatal mu karama di sànni jamra eh. xeer yi ma doon sànni seytaane xeer yooyu la ñu mujjee def muy jamra oh. <laughs> jamratul ula jamratul wusta jamratul aqaba ñetti jamra yi Ismaila di sànni xoolal tracé bi ñi séq tabaski papa la yaay doom aawo mm-hmm. bu muñ ñaareel bu déggal borom këram borom kër gu nangul yàlla ak doom ju topp baayam ñoo waral tabaski ci yàlla bi Ibrahima di bi Ismaayila di sànni ay xeer. seytaane xam na ne échec na dafa ñëw dee maam Ibrahima. ci mag maam pas-pas. ni ko sa doom ji nga bëgg a rendi muy sa taaw bu góor. am sa ci dëkk bi. tee nga ko fee bàyyi li nga def gént la bu doon maa yow damay génn sarax. maam Ibrahima dëgmal yàlla rek xam ni yàlla rek ko ko ñor parce que li ko yàlla wax moo rëy wattaxazallahu Ibrahima. xalilan xalilan lan moo ko gën a rëy. yàlla nee na ko Ibrahima yaay sama xarit. Mhm. waaye naka te léeg-léeg nga xuloog sa xarit wala déet. <laughs> dëgg la de waaye li Ibrahima am xalil xalil yëpp bu njool màkk ñëwee la ko yàlla jox Habib. sa soppe lu mu def neex na la wallaahi dëgg bu sa da nga ko koo soxare mu jaral la ngay xeex mhm. te xarit du la jaral xeex. sa xarit. Mhm. léeg-léeg sa xarit. waaye neex na la. sa xarit du ngeen toog yéen ñaar ba mu jaral la nga xëm. waaye sa soppe bu ñu woon jaleñ bett la nga kiris mbaa nga xëm. ndax cofeel bi am doole yàlla ni Ibrahima dénk naa la xarit gi waaye sa sët bii ñëw moom lay dénk soppe gi gis nga bëgg bamba seytaane décroisé wul dafa daw dellu ca yaayam ni ko yëgoolu xew de mbaa yëg nga ni sa borom kër sa doom ji lay rend ji lenn de la ci namm mooy aawo ba dafa am doom bu tudd isqaq aawo baa fiir ba ni ko faw nga rendi sa doom jooju dina la nax nag waaye dégg naa nooy mu naan yàllaa ko ko digal maam xaajara ci mbaa xam ne bu fekkee ni yàllaa ko ko digal sama xel dal na ndem tudd yàlla ndax ndigalu doom ci baay lu ci baay am droit sañ na ko seytaane daal di jommi maam ibrahima ànd na ak maam ismaila ba jouru tabaski bi nga xam ni tey moom la ñu sunnaal di ko def mhm. pour rendi ko mu ne ko baay comme xale bu góor laa mhm. takkal sama ay tànk balaa mooy wequtu dama lay gaañ gis nga baatu weqatu bi mu wax baayam mhm. boo rendee xar day weqatu wallaahi wallaahi mu ni ko bàyyi takkal samay loxo ndax mhm. bëgguma fittax di la gaañ mhm. moo tax seetlul xar boo ko rendee tànk yi day jug loxo yi di jug muy juyoo mu ni ko takkal sama ay bët ndax boo ko takkul yërmande bàyyi ak ak doom day dox suñu diggante te maa ngi lay ñaan papa na paaka bi ñëw fexeel ba boo may rendi nag ma puus waree ma nii parce bëgguma sama deret ji bu génnee di sànni mu taq ci sa yére bu taq ci sa yére mën ngaa delloo ci sama yaay mu gis deret ji du xam lan moo xew eh maa ngi lay ñaan nag papa mhm. waxal ma samay xarit bul ma teel a jaale sama yaay nanu bàyyi ba déegi miin ma waxal sama yaay ni ko maa ngi dee waaye tey laa ëpp cofeel ci moom te nee ko nag bu mu jooy ndax ndigalu yàlla dox sama diggante ak yow eh eh <laughs> kii du xale du <laughs> maam Ibrahima daas paaka bi. rendi rendi daggul. mais mu rendi waat rendi daggul mu rendi daggul ba ci yàgg Ismaayla ne ko papa maa ngi lay ñaan nga tekki li nga takk sama ay tànk day mel ni gëmuma yàlla kon. te bëgg naa la fekk si yow ci sa ngëm-ngëm bëgg naa nga tekki samay loxo pur boo may rendi nga xam ni gëm-gëm bi nga am pour rendi ma am naa gëm-gëm bu ko raw pour bàyyi nga rendi ma eh, eh, tekkil eh. sama ay loxo du ma fi taxu dindil samay tànk du ma wéqi waaye takkal samay bët parce que bëgguma laa xool moo a gis nga xaru tabaski boo ko rendee da ngay gis mu xool benn place mm-hmm. parce que li mu am moo ko dàqal li ko def wallaay xaru tabaski <laughs> li mu am mm-hmm. mooy ndigalu yàlla bi nu ko rayee mm-hmm. bi nu ko rendee moo ko gënal ñun li nu ko def ndax ci ndigalu yàlla lañ ko rendee mm-hmm. mu tekki loxo yi tekki tànk yi rendiwaat daggul rendiwaat daggul mu ne ko bàyyi bu dee paaka bi ñëwul bàyyil ma jug daasal la ko papaam ni ko bàyyil ma daas ko maam Ibrahima bu téyee paaka bi di ko daas fu mu ko rombale ci xeer xeer bi xar ci digg bi. mu ne mu paaka bii li tax mu mën a dagg xeer wi ni mu dëgëri ak put gunóor gi mënu ko dagg troisième fois bi bi muy waaj a rendi la yàlla ne nag jibril bis bu ne am na examen sa examen tey mu ngi nii ma war laa yokk say garaat ci daraja mbaa ma far la ci aljana ibrahima ngi ne la paaka bi diggal nag war rendi ismaila yaa ci des ñoom ñaar seen diggante fexeel ba roccil ma maam ismaila roofal ma xar te bu laal ibrahima bu mu yëg ni roof nga xar te boo yóbbu bul yóbbu xar mu ndaw wa fadaynaahu bi zibhin na bi maam ibrahima di déclenché commencé paaka bi muy déparé fii ci lay rocc Ismaïl di roof xar mi dafa rocc rek dégg dégg dret ji maam Ibrahima gis nga booy ren di tabaski doo wax bismillahi rahmaani rahim parce que yërmande amu fa xar doo ko ren di di ko yërëm bismillah rek ngay wax ren di samp paaka siggi ni allahu akbar ñaara am ci xar mi mooy man mi kat sama baay man la waroon def nii bu dul woon man la sama baay war a def nii sama taaw bu góor kon nii laa ko war a def kon ñaari occasion nga tëralee xar mi yow maa waroon dem ndax sama baay man la waroon ren di bu ma sama baay warul woon ren di war naa ren di sama taaw bu góor kon waroon waroon naa tëdd fii xar mii fi mu tëdd mhm. sama taa waroon na fee tëdd mhm. yàlla ni ko xar mu baax lay doon mhm. bi mu rendee siggi la allahu akbar xool gis Ismaayla téye ci wetu poos bi mu ni ko Ismaayla deewoo mu ni ko bàyyi nit du dee di téye ci tànk baay mu xool gis xar mi mu xool gis Jibril mel ni kuy mu dellu di delluwaat ci boromam. Mm. di di delloo ay laafam. mu xam ni xar mi ci yàlla la jógee yàlla nag ni ko nag Ibrahima wa taxazalahu Ibrahima xalila wallaay sojaan wàcc na nag <laughs> fi ma jaar ak yow yaa ngi fàttaliku yaa naa rukuni bardan wa salaaman. ala Ibrahima mus nañ laa dugal ci ci ci kàmb gu am. safara mais sa sañ-sañ ak sa détermination tax na la ko découragé woo bàyyiwuma la bàyyiwooma bàyyiwooma bàyyiwuma la ba karam ma naan la rendil sa doom te yow sa décision bu ma la wax Ibrahima matal nga ko kon loolu it examen la woon ci Ibrahima ci Ibrahima waaye ak cofeel bu doom di am ci bàyyi mhm. moo tax bisu tabaski li mu laaj mhm. bu ma gisee jigéen di di rayante pour xotti jees neer ba mu jaral ko mu ñibbi kër baayam mbaa nañ ko jëndal sëba mais jees neer bokkul ci su sunnay sunnay sunnay tabaski. bokk ci de bokkul ci sunnay tabaski. Euh, euh, cheveux naturel bokkul ci suñuy tabaski. dàllu coquette bokkul ci sunnay tabaski. pochette pochette bokkul ci sunnay tabaski. maquillage euh, maquillage bokkul ci sunnay tabaski. am na ñu dem ba ci laaj téléphone nag. waaw waaw léegi téléphone boobu est-ce que Ismaïla dañ ko joxoon téléphone. jaamu yàlla <laughs> la yaay di yëg jamono jooju bu fekkoon ni bëgg bamba cuun <laughs> <laughs> bu fekkoon yaay yi kat xam nañu ni seeni doom la ñuy rendi kenn ku ne doo tal sax bay ñawlu minute bu ne yaa ngi xool Cheikh naan ndeysaan Cheikh de fukki fan a ko fi dese tey le premier jour di ko xool wala ngay xool Mouhamed Mbaye wala yow mii di ma seetaan nga yëg a rendi kon sa solo. wallaahi yow nga xam ne yaa war a dee bu fekkente ni yàlla fukki fan bu jotee. non bu fekkoon non yàlla mooy yàlla. bu fekkoon ni fukki fan yi dalay paralysé loo ba doo mën dox. ku mu bàyyi woon ak say tànk bi yaa ngi tefes nga toog naan sama papa maay dem baa bee neex <laughs> kon kenn dootul njaboot. doom boo bu ne boo yëgoon yaay dem mhm. dootal xotti jees neer bàyyi bu ne boo yëgoon ni sa doom ngay rendi doo tootal dara ci àdduna mhm. tabaski foofu la toll léegi kon euh, tabaski macha allah mu leer la ni kon euh, yii yëpp waru ci kon yan ñoo war ci tabaski ak tamit ban xar lan war a tabaski ndax it dégg nañ ci coow li bari na ci ban xar moo mat tabaski ak ban xar moo matul tabaski cheikh xar pour mu mat tabaski ci gàttal faw mu romb juróomi weer dem juróom benn weer problem bi nag mooy jaaykat bi mo lay wax deug wala mo lay bañ wax deug nak mën nga am xar mo précoce. Mhm. di nga rombu Cheikh. wala nga rombu ciun bëgg Bamba di ko classé ku am 40 ans. Mhm. fekk du 40 ans lamuy lek baax mo tax mu mag mhm. xar mën na précoce ci ñi yar. baña am juroom ben wër ba paré am jëm mais xar fay am juroom ben wër pour ma tabaski. benen bi ci top moy xar bët bi du pat. waaw un tiers ci gene gi bu dagge matul tabaski un tiers ci ci béjjën bi. ci ci ci nob bi mu mhm. daggee matul tabaski ñit ñaa ngi werante xanaa xamu ni ci béjjén bi mhm. mais am na ci ay boroomi xam-xam yu ma toogal waxtaan ak ñoom mhm. ki ma ci gën a doyloo nee na ma béjjén bi bu fekkee ni wér na mat na tabaski bu fekkee ni day naacc ba tey matul tabaski te ñit ñi dañoo jàpp ni bu béjjén bi demee rek matatul waaye bu béjjén bi wéree mat na tabaski bu wérul matul tabaski beneen bi ci des mooy xar muy soox soox bu fés ba bu jiit lekk ay moroomu xaram ñu rawee ko distance bu sori mu soox ba fés matul tabaski xar moo xamante ni yooyu na ba bu jugee taxaw day daanuwaat matul tabaski wa fadaynaahu mhm. bi zibhin azimin mhm. yàlla ne woon na ibrahima bi ma koy njotal ismaila ci xar mu mat sëkk laa ko njote mhm. xar mu am taxawaay xar yooyu la ñuy tabaskee xar mi nga ciy tegaat bi nga xam ne matul tabaski mooy xar mu muuma est-ce que nit ñaa ngi koy bàyyi xel <laughs> am na xar yoo xam dañuy muuma duñ mën a wax mbee loolu duñ ko seetlu la moo tax tabaski moo sew xar mi warta muuma mhm. war ngay deg baatu mbé bi mi wax bi ci top moy xar mi waru waruta xéñ war nga jël sa loxo dugal ci ci gemmeñam foon ba xam amna xet wala amul xet yow mi seetaan daal ni ngoñ ak tripass non duñu duñu xéñal gemmeñu xar ndax yalla day xol li jaamam jafe mu sagal ko ci li jaamam man mu seetaan ko yalla xam na ni xar mënta patu mënta borosu Yalla ja aaral ko gemmeñam yow mi mëna patu mëna boroso borosu yàlla ak sa gemmeñ <laughs> wallahi deug la <laughs> wallahi deug la doomi doomi nit bu juddoo mënta jug taxaw ci saa si parce yàlla xam na ni boole na koog nday ju ko boot waaye comme ñoom xar ñoom ñoom ñoom ginaar ak ñoom minimel seen nday mënu leen a boot moo tax buñ juddoo yàlla roof leen teel a mën daw mën a topp seen nday oh. <laughs> loolu la yàlla jagleel <laughs> léegi nag yii moom benn matu ci tabaski mm. pour mu mat tabaski faw mu faw faw mu mat juróom benn weer mhm. faw xar mi ku ko gis taxawaayam mu baax pour tabaski mhm. faw yi ma la ci wax benn par benn ni yooyu matul tabaski kenn du ko tabaskee léegi nag yii la ñuy tabaskee kon tey ci li ñu déggee nii mën nañ ni kon xar xar lu mu gën a duuf macha allah gën a njool gën rafet gën a mën a tabaski waaye boo koy tabaskee lan yenaan yanaal allaahu luxumuha wala dimaauha walakin yanaalu taqwa yàlla nee na xar mi ngay tiitaroo mhm. yeew ko ci buntu kër gi ngir lan wan ni say dëkkandoo sama xar rëy na wala nga ànd ak soxna si dem dem dem daral ni ko tànnal xar mu la neex jaamootoo ci yàlla parce que yàlla nee na yàpp wi intéressé wu ma deret di intéressé wu ma ragal yàlla rek laa ciy wër am na ko jënd xaru un million. Mm. bu kontee këram 1 2 troisième këram xam na ne dëkkandoom bi amul xaru tabaski. yàlla ne la bul tiitaroo sa xaru 1 million bi. Mm-hmm. bëgguma ko. yàpp wi ñoru ma nag du ma ko lekk. Mm-hmm. yow yaa koy jariñoo yàlla dafa baax ba fa baax yam jëndal xaru tabaski waaye yaa koy lekk bu ko neexoon moom yàlla mu ne jëndal xar ba pare. seex joxal ma ko ay xaj. <laughs> wala dem joxal ma ko ay gaynde bu boobaa doo ci yëg sa bopp waaye bëgguma yàpp wi bëgguma deret ji man yàlla ragal yàlla laa ci nam jëndal xar moo xamante ni jar na deux cent mille li la dese muy huit cent mille ñaata dëkkandoo nga mën a bett jox leen cent mille francs sa cofeel sa diggante ak ñoom yokk ku lay seeti guddeeg bëccëg subaak ngoon nga mën ba mu xam ne mën nga te loo ko boo ko gisatul yaa yàq seen ànd wallaahi dëgg la cheikh koo war a dimbali te dimbali woo ko mhm. boo ko gisatul yaa yàq seen ànd mhm. koo war a suturaal te suturaaloo mhm. ko boo ko gisatul yaa yàq seen ànd tabaski bàyyi bu nangul yàlla la doom ju am kilifa ak soxna su nangul borom këram bu ko defee nag bu tabaski jotee yii lañ ciy sàkku nga bañ see génne am na loo xam ne yàqul tabaski cheikh waaye mën na wàññi yoolu tabaski mooy yàlla dafa ni soxlawu ma yàpp wi mhm. soxlawu ma deret ji mhm. waaw kon looy génnee poo ju njëkke ci alalu yàlla ah am na ci poo ju njëkke warul génn tabaski tànk goro mhm. warta génn tabaski béjjënu nijaay warta génn tabaski génnu yumpaañ warta génn tabaski faaru tonton warta génn tabaski tabaski ñetti xaaj la benn bi saraxe bi ci des denc bi ci des lekk mais oustaz fii yow li yii nii nga wax ni warut a génn ku ko deful sa sëy sax xaj na ci. xam nga lu tax. Mhm. góor gu yambar lay dal. cheikh góor bu yambar. lu ne lañ koy imposer muy nangu. Mhm. waa garaawul amul problème. yaa jënd xaru tabaski bi man sama xaru tabaski amul njëkke amul diw amul diw. Mhm. xar mi dama koo jënd pour jaamu yàlla. dama naan xar maa ngi nii tege. lii dañ koy saraxe. te léegi sax pour nga gis koo sarax sax day xaw a jafe tuuti. parce que nit ñi dañoo làmboo rëy. lii nga jël ko jaamu ci yàlla li ci des nga denc ko am na ñoo xam ne dañuy jël xar xaw ma wàjj la xawma weer ko ci ay liñ jëm moom tam xarit bari na ñaata nit ñoo koy def jaamu yàlla la boo ci jógee rek jóge ci du ñàkk balaa tabaski dinañ defaat beneen émission nga xool tabaski yonent bi li mu daj ak ibrahima doomam te yàlla dafa garaaw maam ibrahima moom moom tabaski bi yonent bi yéegee di jëli julli bi mu demee ba tolloog maam ibrahima daf koo xool ni ko taar bi ne ci yow maam Ibrahima maam Ibrahima dafa rafetoon am taxawaay mhm. yonent bi di ko apprécier ci taar mhm. mun ko wallaay gisoo sa bopp Mouhamed yëgoon yow yaa ma dàq nabi ni ko bis bu ma amaatee doom bu góor yow laa koy tuddee oh. bi yonent bi ñëwee ba Xadija génn àdduna ba yàlla boole ko maariyatul xibtiya maariya moo jur Ibrahima wal ummu maariyatun mhm. law aasa faasa bihi al xibtu fawzan aziman gayra muntasimi maam maariya moo jur Ibrahima mu tuddee ko maam Ibrahima amul sago ci moom waaye jotul dund at yu bari teel a génn àdduna bi muy génn àdduna bisu tabaski la tombeel mu saf hmm. sàpp ci yonent yàlla muhammad yonent bi juru tabaski boobu jooy na lu mu mën ci jooy jooy na ba jibril téye mbaggam ni ko yàlla nee na nga arrêté jooy yi hmm. ko waxal yàlla jooyu ma ngir ñàkk doom dama jooy ngir wéttal ak cofeel hmm. gis nga maam ibrahima bi ñu koy suul yonent bi doon na ko wax naan ko waxal nabi mooy sama baay waxal yonent bi mooy sama papa ci jouru tabaski yonent bi dem na ba simmi yéreem cheikh di ko dugal ci bàmmeel nan ko waxal na bi mooy sama baay Omar ni ko lu xew lu tax nga tàqalikook sa sago mu ni ko bin koy dugal gis naa malaaka yi nekk ci biir suuf départ di ñëw mooy munkar ak nakir bi nuy ñëw ma bañ ñu gaañ ko parce que bi muy génn àdduna dafa feebar ma simmi sama yére dugal ci bàmmeel waaye taluñu maa déglu Omar daa xëm ni ko yonent bu toll ni yow sa doom xale bu mës ta def bàkkaar nga koy ñaanal ñeek malaaka yi daw lu bari lii hmm. masa malakum mësa def ben bakkar te yi tay bala sa fukki l'ikhlas ak ben di mat pa bi jangul matal baray te naan nañ gëna almeri yor téléphone am di manipuler nan j'arrive j'arrive j'arrive j'arrive wallahi ngi ñew wallahi legi xolal jour bobu ibrahima génnee àdduna hmm. bi ñu demee ba takku sandi waji jot hmm. yalla ni malaaka yi jibril dem leen gën jaale jël ma sama waji way tay dañ na dëgg doomam gaañu na joy na sonu na ci def na lu ne te rendi lo naa ko xaru tabaskem wax naa ko nan ko fees acca demal nga julli ji inaa tey naakal ya yàlla ni jibril jëlal géeju kawsara nga ànd ak malaaka yi ngeen dem jaale jil ma ko muhammad mhm. wax leen ni ko yowmal xiyaam nit ñi dinañu mara naan ba koo ci jox géej bu ko naanoon ba mu jeex du tax mu màndi ben kaas geedju kaw sara moy tax mu màndi ndax yawmal khiyam dina wacce jant bi bam tolok sen yuri yawma tazhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa tara naasa sukara wa ma hum bi sukara wala ki sadid ku nan ben kaas geedju kaw sara yàlla neena sa aljana leer na ta doto mar ak lu naaj bi tàng-tàng wax len ni jeulna geedji géej ko yonent bi bis ni ki tey ko ko moy borom mom la sayyid El Hadji wax ni huddan kawsarun xat allah kawsaran bihi yantafi yawmal khiyam الظلام غليل وأبيض لونا من الحليب ودونه من الحلو عذب شيب فيه نسيل وكيزانه مثل الكواكب عدة سقانا به الرحمن يوم نهول ما شاء الله mooy géeju Kawsara boobu yàlla ni malaaka yi dem leen ngeen jàlle ji ko yonent ni ko inaa ñun a man mako def rek ina yalla, tubab kum respecté def nonou vous voyez vous vous mhm. pour respect tayo la <laughs> wa vous ta day nek yow kasse <laughs> mais respect bobu yalla niko ina ñun yalla mënu nako ana waaye ina ñun yàlla mhm. mhm. a'taynaaka jale nañu la bisu tabaski tey bii alkawsar geju kawsar ñol maa fa sali demal nga julli li rabbika ndax sa borom bo delu se woon xar na nga na nga loj sa xaru tabaski rendi gis nga Bimu mu xaru tabaski ba commencé saf jibril di ko demal nga lek demal bimu toge ba commencé lek la jibril di cëpp ni ko yàlla nee na xar mi nga rendi xar mu góor la yow xam nga ni xar mi am na yaay ndax xam nga fu yaayam ne xar mi am na baay ndax xam nga fu baayam ne nga génne ko ci gét yàlla boole la moom mu am bakken comme sa doom am ruu comme sa doom di yëg comme sa doom ma rendi loola ko yemuma ci ma fees loola ko nga sentir ni yaa ngi gis deretam ma lakk loola ko ci kaw safara nga béggee ci yow ak sa njaboot bu ma la waxoon def ko sa doom di nga ma ko nangul te bu boobaa lay gën a métti Ibrahima nag dencal naa la ko bu yow ma la xiyaamee di ngeen gisee yéen ñaar inna sha'naka huwal abtar <laughs> tabaski ngi noonu Cheikh <laughs> yaakaar naa ni dootuñ ko teel yàgg na ku ne xam na ni fii jamono toll xat na wax fa dëgg yàlla oustaz kàddu gu mujj gi ak lan ngay dénk nit ñi ci tabaski bi. dal Cheikh gis nga nit ñi. Hmm. ñooy def lu ñu mënul. Hmm. benn waaye démb nee na ma oustaz foo dégg jàpp nañ fa sàcc xar tey ci. bu doonul sa nijaay rek mën naa doon samak wala sarak ndax <laughs> dëkk bu naqari mais <laughs> dëgg la wax. <laughs> nee na koo fi dégg rek ñu jàpp ko sàcc xar teej bul dóoragum dama ñëw du ndax mën naa ne koo xam xam nga jamono bi moom métti mhm. xoolal xar yu ndaw yi ñu doon def ci documentaire yi ay xar moo xamante ne boo nee ko eh mu tiit ba dee ñun la cent vingt cinq mille mais ki nga xam ne yàlla natt na ko salaire am soixante quinze mille la muru sa ñaan fu muy jënde njëgu xar wallaahi wallaahi fan lay jëlee lu mu toggee xar mi. Mhm. le 10 mooy tabaski mu war a fay location am ci 75 yi fan la jëm. borom alal yi nañ di dimbali doomu aadama yi. Mhm. gis nga cuun. Mhm. damay toog de xalaat loolu ba damay stressé ñi nga xam ne tabaski lu ma gën a jege seen fit dem. man mii rek wallaahi suma fit daa dem <laughs> man bu may xalaat ne tey la première. fukki fan juróom-ñeenti fana ama dese te juróom-ñeenti fan yi dootuma ko calculer kon juróom-ñaar laay calculer ñi keneen ak keneen ak keneen yow fën nga jëm te yow am na ñooy xaar ñooñu am na ñu ñuy xaar yow yow it am na ñu xaar yow waaw man am na ñu may xaar pour ma jox leen mhm. man am na ñoo xam ne maa leen xaar pour ñu jox ma ñi ma war a jox am na ñuy xaar pour ñu jox leen ligne la rek liñ naan transitivité d'une relation ligne la bu ko defee nit ñi nañu def lu ñu mën. wallaay te xam ni benn bés la. Mhm. leb tabaski. Mhm. te pël bi dalay baab di la baab ba lebal la xar boo moytuwul sax sa kër lay tabaski see. lekk sa xar lekk ci sa xar mi. lan demee tabaski mu doxoon seen la eh eh cuun ba fàtte woo ma ba tey kooku kañ ngay nelaw. Eh? defal loo mën. wallaahi maa ngi lancé message du doom yi waaye soxna yi. Mhm. nga gedd sa kër jëkkër ndax xar mu ndaw mi la wutal dem sa kër baay boo demee sa kër baay ci sa pooju xaru baay ca ngay lekk wallaahi bàyyil xel loolu balaa doon càkk nga nga lekk sa ñeenti poojaw mhm. li ngay lekk sa kër bàyyi boo ko dajale woon mhm. saxar ëpp na ko téeméeri junni dalal leen xelu góor ñi mhm. bu ñu guddeewee ngeen di leen incha allah dina baax te itam di encourager sa jëkkër ni ko benn bés la rek def ci ndànk dalal xelam sax yu génnee xel mi dal am na koo xam ne talatul sangu cheikh talatul lekk talatul naan waa ki war a jugee Dakar tabaski ji dëkk ba nag te amul oto xam nga ñaata la war fay tey war wut xaram dang dangi nax yow yooyu yëpp na ko jigéen ji bàyyi xel gis nga jigéen juy xeeb mhm. lu ñëw bu ko bett jigéen war ta xeeb jigéen warta mhm. doy dal borom këram mhm. sagal ko wan ni ko bés bi day jeex neexal ko dalal xel mi bu nee la nangam bi laa am nga ni ko nañ ko jënd dalay jaral nga ni ko nijaay dañoo jugee ci corona. jëndal kilo soble rek ak kilo pomme de terre jamono neexul mais am na jigéen ñoo xam ne lu rëy lañ bëgg jëndal 20 kilo ki ngay jëndaloo 20 kilos pomme de terre te bu defee xaymaam lépp moom ci boppam bu doon jaay pomme de terre mënul am kilo pomme de terre fu mu jëm. wallaahi dëgg te góor dafa met jigéen ñi jàppale leen seen borom kër yi. Mhm. góor ñi itamit def leen lu ngeen mën. Mhm. ma leen di wax benn message xaru tabaski ku ko corriger amoo ak ah, ku ko cotiser. Mhm. amoo xaru tabaski xaru tabaski kenn du ko cotiser joxeel 25000 ma joxe vingt cinq 25000 muy muy 50000 ñu jënd xar. ku ko def am nga yàpp amoo tabaski. Ah. xaru tabaski kenn du ko cotiser xaru tabaski xam nga ku ñu cotiser mhm. euh, man la cuun jox ma cinquante mille mhm. ma génne cinquante mille Cheikh génne cinquante mille muy soixante quinze mille mhm. ñu dem jëndee ko benn xar ngir terale ko sunu papa muy xaram moom mais man ak yow du ñu jënd benn xaru tabaski ngir bokk ko tabaski ku ko def di nga am yàpp waaye doo am tabaski yal yàlla defal ñu dégg ak topp taqabbalallahu rabbuna si daawatana mimma nuhibbu bihi bi jaah yaasini bi jaahi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf macha allah di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom oustaz Mouhamed Mbaye saa su ne ci disponibilité bi à servir si disponibilité bi jariñ macha allah képp kuy jullit jariñ ummatu saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci jàngale macha allah bu fasaaxa bi di ko ñaanal wér wérle gudd fan wax fa dëgg yàlla ndam lu yaatu nga xam ni bëgg na ko ci diin islam bu doon sagom dana ko am incha allah waaye yàlla na ko yàlla defal barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci darajey soppeem ci darajey turandoom macha allah mu yonent bi sallallahu alayhi wa <laughs> <laughs> sama cameraman moom nee na nee na nee na mooy mooy fan sa number one wax dëgg yàlla Cheikh Tidiane. sama xarit ah. naa ni sax oustaz day juum naan ma Cheikh wax dëgg yàlla xam naa ne Cheikh Tidiane mi ngi ko tuddee la. so damay <laughs> sot de. kun bëgg Bamba a <laughs> a a gàtt Cheikh a gën a gàtt. <laughs> kon di ñaanal oustaz wér ak gudd fan macha allah barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñëpp am xaru tabaski barki yonent bi mën a yàlla fi mu ne tey it jaaykat yi nan def xar yi nànk a dóor xar yi xar day manqué def leen nànk xar yi wax dëgg yàlla bu leen dóor dee leen raay. loo ma laaj kañ laay jënd. oustaz kañ man suñu suba la tabaski. <laughs> fu 3 heures du matin jotee ci laay génne jëndi xar. chaque année ba ma dee lay jënd xar ba tey. lu tax loolu. parce que damay jàpp ne heure boobu li xale naan la si kiri moom koo jaayul ku ne sa xar lamb <laughs> jaaykat bi sax moomee mujj di neexal. <laughs> mais période bi kuy jënd dañ naan moom bu jëndul moroomam jënd waaye buñ demee bañ ñu suba la tabaski <laughs> nga dem ba 3 heures du matin <laughs> dañ naan oustaz bu jëndul xar mi du jar te buñ ko naree yóbbuwaat ba déwén di ko di ko di ko ñu ko ma daal di jënd heure boobu rek laay jënd mhm. waaw bu may jënd itam dinaa ko nëbb wallaahi parce que ki ma dendal bëgg a wàcc sama xar te mu mag ma mhm. njëkk ma ci koñ bi gën maa njaboot bu gisee xar mi ma jënd man rek mhm. mën naa am lu ma def ci moom bu ma jënd rek yàlla xam ne dama koy nëbb te du génnaat kër gi ba ñu rendi ko ba defar lépp man noonu laay dunde ndeysaan bëgguma bëgguma jaam <laughs> wallaay bëgguma jaam buy buy wane dooleem ndeysaan waaw ndeysaan est-ce que kon kon nan ka nan ka doxalee noonu wax fa dëgg yàlla te mu ànd ak sutura tamit jaaykat yi tamit yaakaar naa ñu wàññi sunu loxo tuuti wax fa dëgg yàlla xam ni benn bés la li nu xont xar mi yëpp mënuñu ko fayeeku ci xar mi mënta ne kon di gërëmaat bu baax a baax sama technicien bi nga xam ni image di leer son bi lépp moom la ngeenaa noonu kaak cuun bëgg bamba spécial tabaski bi mooy numéro 1 bi allah des na yeneen numéro ak oustaz Mouhamed Mbaye mu euh, Oustaz Mouhamed Mbaye Jamil yaakaar naa. nijaay waxaaleel ma euh, sa nijaay. Mhm. amaguma xaru tabaski. Uh-huh. Taliba TV ñi ci nekk nijaay yow mi nga xamante ni tabaarakallahu yàlla baaxal na la ba boo waxee yàlla mu daal di def sa yiw sa mbaax mhm. sa taxawaay ñëpp xam la ci réew mi mhm. tabaarakallahu ngay def ay social di dimbali ay doomu aadama di leen jàngal fatiha di leen jox fatiya borom front de terre yow laay waxal amaguma xaru tabaski lii nag nang ci jot <laughs> <laughs> yaakaar naa loolu Serigne Djibril Niang le marabout des grands hommes yaakaar naa yaa moom wax jooju oustaz nee na amagul xaru tabaski te macha allah wax fa dëgg yàlla ci xar yi ngay séddale nag jox ci oustaz yooyu sëñ bi. sëñ Djibril Niang xar. <laughs> sëñ Jibril ñang nag xanaa nag xanaa nag xanaa nag sama waaji nag sama waaji nag xanaa nag di ma woo ma xar mi nag ah, dëgg yàlla oustaz mooy saxaru tabaski dëgg yàlla jox ma ci yéen yar mhm. sëñ Jibril amaguma xaru tabaski <laughs> kon di leen jaajëfalaat yéen ñi nga xam ne yéen doon topp macha allah sur Talibé TV leen jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu